Serigne Abbas Mbakke ñu fi toogal ak Cheikh Ibrahima Fati borom di ñaanal bu baax alxaaji maam Cerno Mbakke mi toog jataayu yaa xafaaru tunoob Serigne Saxaw Balla di ñaanal ak seen jëwriñam di suñu waajur di suñu sëriñ nga xam ne ci ndigalam ak ci kilifteefam ki la ñu woote woon bis bii muy Serigne Mouhamadou Makhtar Mbakke moom Serigne Saxaw Balla di ñaan suñu borom mu yàggal ko te wéral ko te wéral ko ñu wër ba li mu yéene ci liggéeyal ko waajuram bu baaxoo sëriñ Seexaw Balla mu defe ko ni mu ko bëggee di ñaanal bu baax mag ñu baax ñi fi nekkoon àndoon na ku baax di Seex Mat Bamba mag mi njëkk ci sëñ bu mag bi ba ci mag mi nga xam ne moo mujj ci sëñ bu mag bi di ñaanal ak a siyaare jullit yi ak taalibe yi di nuyu mbokki yi di nuyu mboolem ci réew mi ak bitim réew ak foo xam ne gan bàyyi ko na ñu ngi leen di nuyu de leen siyaar di leen ndokkeel bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ni ko waxe woon ci woote bi lu romb weer ci gannaaw bi nu amee ndigal ci kilifa yu baax yooyu ma tudd alxaaji sëriñ Gana Messere Maxtaar ni mu baaxoo def bis bii nga xam ni ren moo nekk seizième édition muy bésub sant Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ak delloowaat ko njukkal biñ ko dalee def ak léegi biñ ko datee ak léegi fukki at ak juróom-benn ci ren tàmbalee woon ko ci njëlbeen bu sew lool waaye Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba saa boo dawee wut si ko mu gàttandu la loolu moo waral tey bis bii dawe bi nga xam ne am na ko ndax biñ koy sos ci njàngum alxuraan lañ ko doon defee buñ noppee ñaanal ci ñibbi. di dem bay wërale ay bant di takk ay mbaal di ko def fii ci kër suñu waajur bu baax bi bàyyi ma ne mesare Sëriñ Tuubaa nag dinu ak mbaaxam jot saa bu nu defee ne ren moo dàq moo dàq daaw ko wootee rek ne ren moo dàq yi bi ko tàmbalee def ba yi nga xam ne wax naa ko ci jataay yi mu def danaa ci ñëw ci kanam bi nu jàppee màggal gi sëriñ Gana mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba doon liggéey ak moom ba seen liggéey mag ñu ñibbi te ku teddi Cheikh Ahmad Bamba mu jël bis boobu dinañ ko tuddee at mu jot ndax xam taxawaay bi nga xam ne mag ñi amoon nañ ko ak liggéey bi nga xam ne am nañ ko mu jël yitteem def ko ci gëstu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ak waxtaane magi seen Touba Cheikhul Khadim moo xam ne mag ñoo ñuy waxtaane waxtu nekk ak Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba bis bii muy def donte ne àdduna bi yëpp wuy si nañ ko tey ci liggéey bi muy liggéey Serigne Touba waaye mu xam ne la ko taxoon mu sos bis bi bi muy départ mooy sant Serigne Touba ak delloo njukkal Serigne Touba Cheikh Mat Bamba mu ne mag ñi nga xam ne dañoo toppoon ku baax ci Seeru Xaadim di ko liggéey serofal mag ñooñu nag Serigne Gana def am nu jot mu jël ci mag ñooñu kenn tudde ko ko wala ñaar wala ñett ñu tudde ko tudde googu yi liñ ci jublu mooy waxtaane seenu dund ndax xam ngeen ne la 27 lan tàmbali woon programme bi ci kër Serigne Abdou Karim Touré ñuy ñaanal bu baax ak siyaare Cheikh Abo Touré bi nga xam ne mooy ab xalifaam di ñaan suñu borom mu yàggal ko te wéral ko te yeggal yéeneen bi ñu defee appel bi ba pare fii la ñu bàyyi ko ak Alaaji Gana Maxtaar dem fekk sëriñ Abo ca kër ga soo jëgal ko bis bi tàggu ko ci laaj ko ci ndigal mu ñaanal nu ci joxe ci ndigal nañu lépp dana baax ñu daal di wéy nag le 27 woote ab jataay bu yaatu muy ab plateau plateau boobu dañ koy def sëñ Abdou Karim Touré képp lañ ci doon waxtaane ngir sëñ Gana daa bëgg nu waxtaane sëñ Abdou Karim Touré ngir ndaw ñi moom man cee jànge mag ñi man cee fàttalikoo bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah barke baram Tuubaa barke Cheikh Massamba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu bokki jullit yi teew yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di leen nuyu ci tuuru Serigne Alioune Thioune mi nga xam ne mooy président directeur général bu groupe Fall communication di jiital ci nuyoo boobu nag ak ziar bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général ku lubu di ñaan suñu borom guddalaw fanam te wéral ko te kàtt naa ko taakile yéen ci darje lislaam di ci toftal Serigne Cheikh Jëmu Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp ak jullit yëpp ak taaliba yëpp ñoo ngi jéggulu kàddu yi ñu bëgg a yëkkati waaye day kàddu ndigal rek di jéggul tamit toogaay bii ci kanamu suñu kilifa waaye ci turu sëñ Aliou dafa mel ni bu jiitalee kilifa gi nga xam ne moo mooy jëw nañu yoonu murit te kàddu yi muy bëgg a di ay kàddu seere yu jëm ci sëñ Gana Messere Muxtaar moo tax nuyoo boobu ñu koy tàmbalee ginnaaw kilifa yi jiitu si sëriñ Mouhamadul Muxtaar moom sëriñ Cheikh mi nga xam mooy sëriñ Gana Messere Muxtaar mu mel ni teew nañ ci bis bi ndigalal sëñ Alioune bi nga xam ne moo jëruñu liggéey bi nga xam ne moo am yéene moo amoon yéene dikkal boppam ndax ku ne xam ne digganteem ak sëñ Gàddaay Moxtaar mu jox ñu digal ginnaaw bi suñu borom dagale moom ngànt ngir ñu ñëw Touba fekk si fi personnel bi fi nekk ci njiitaru Serigne Fallou Gala Sill ak soxnaawa Fall Mbacké waaye tamit ci teewaaye suñu kilifa di suñu nijaay de suñu Abdou Lahad Thioune ba ci soxna yi ñu àndal muy délégation bi yépp waaye sëñ Ndiaye dafa wax ni diggam ak sëñ ay seere rek la ciy joxe waaye da ca teg ne nag moom du sant sëñ Gànna waaye da koy ñaanal te di ko sàkkul ñaan ndax wax naa ko léegi ci këram yàlla dafa dogal mbir moo gis suñu borom da koy utal sabab jotaay tey bii nga xam ne sëñ Ahmadul Muxtaar wax na ko léegi muy Maxtaar Diop ne ren mooy seizième édition noonu rek la demee ndax làmp Fall bi nga xam ne yàlla dogal na ci la liggéeyub sëñ Gana jaaree ci coobare suñu borom mi ngi tàmbali ab liggéeyam fii ci Touba ci 2003 2003 ba 2020 day dugg kon fukkeelu at ak juróom-ñaar waaye bu ñu seetloo rek sëñ Gana ay mbiram ni mu demee nga xam ne coobare Serigne Touba rek la ndax Serigne Moustapha moom sëñ Massamba mi nga xam ne mooy suñ yaakaar tey ëllëg daa am bis. mu ni wax na Serigne Touba buñ la laajee lu mu doon ay ayati min ayatillah nel kéemaan la ci kéemaan suñu borom mu mel ni kon sëñ gànna ay mbiram sëñ becc wane ay kéemaanam wala sëñ becc yi wane ay def ay tawfiixam ndax ku ne xam ne na fukki at juróom-ñaar boo ko génnee ci atam li ci des lu bari moo tax ñuy sàkku ci mbooloo mi ñu ñaanal ko bu xoolee émission yi mu ciy taxawee ci Lamp Fall lu jiitu rajo bi lu jiitu télévision bi benn émission mi ngi tudd jaar-jaaru Xaadimu Rasuul loolu yóbbee na ko kon mu war a jóg gëstu ji sëriñ Touba ak ay ñooñam ak liggéeyam beneen bi mu ciy taxaw ñu tuddee ko daxbatul xaq mu jotaayu dëgg kon yooyu day meloon rek ay jikkoom mu mel ne liggéey la boo xam ne bi mu ko tàmbalee ba léegi. yaakaar naa mbokk yi jariñ nañ jariñ nañ ci bu baax a baax a baax moo xam fii ci biir réew mi da ba ci biti réew ndax kuréel soppee sëñ Gana Messere yi demee ne feeñ na ci lëggéey boobu di ci rogalaam moo tax sëñ Aliou waxoon ne mi ngi leen di seeral ay cantam ci moom waaye nag di fedd di kóllëre diggante ak moom ndax ginnaaw beneen liggéey bi boolee liggéey bi nag dafa lalu ci njàngalam sëñ Tuubaa moo tax bu ngeen seetloo ci slogan Lamp Fall da dégg ñu naan tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ dangay da ngay dégg ñu naan la ceeñeer di jolu ci lëndëm kenn di ko dëgmal di gëlëm kon li ko tax a jóg mooy leeral ak yaatal njàngalam sëriñ bi sëñ Gana nag bay ci waar wu wu sell waar wu yaatu moo doxoon signal dafa waxoon ne bu ñëwee tey dana seeral mbokk yi ay cantam jëmee ko seen gànna waaye nag di fedd lu waat kóllëreem ndax dafa wax ni leneen leen booloon ab liggéey la waaye nag liggéey boobu nag liggéeyal Sëñ Tuubaa la tudd waaye ci bi liggéey Sëñ Tuubaa ba nag àgg na foo xam ne gannaaw beneen pas-pas boolee dafa juraat ak bokk ñu ngi julli ci mu ngi sant suñu borom di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal sunu njëbbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ko féddali ci borom Daaru Muxti mi sunu bunt ci moom tey wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi xam naa ne kàddu yi lu gàtt lay doon ndax yaari mbir bi ko jiitu mooy sunu kilifa gii ci sunu ginnaaw di Sëriñ Basiiru Mbàkke ñu koy gën a woowee Serigne Bass Thioro mboolem kàddu njabootu Cheikh Mouhamadul Mokhtar mënoon na ko yóbbaale ndax ñoo bokk wayjur wi te lu waay gàtt gàtt dégg-dégg xam diggante Cheikh Mouhamadul Amine ak Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké rawatina nag kóllëre gi nga xamante am na ko ak Serigne Gànn te mu seere ko léegi te ñëpp xëy xam ko. ñaareel ba itam bis moom bu ci nekk dafa am boroom maa ngi koy wax sëñ Modou Makhtar léegi di ko wax ne ko ak ku nu mën a doon rek sëñ Gana mii la suñ borom jagleel bis bi moo war a mujjee wax waaye rawatina orateur bu mel ni moom wax ci ginnaawam yombul ndax wax ba wax jeex wax loo xam ne lu saf nit ñee ci gën a metti te sëñ Gànna fu mu wax ba noppi wax fa lu saf nit ñi yombut kon bokk na ci yooye li war a tax tey sunu kàddu yi nu gàttal di jottali rek ak cant ak ngërëm gu bàyyikoo ci kilifa gi nu bokk nun ak moom di Cheikh Mouhamadul Mokhtar mii sunu bunt ci Sëriñ Tuubaa jëm si ci jëmmam ji gannaaw itam bu ñu nuyoo itam ki nga xam ne moo fi teewal boroom réew mi di le sous-préfet monsieur Diallo di ko jox wàccuwaayam moo ki hiérarchie bi mu àndal yëpp sëñ Gànna man de ku gëm sama baay la ku ko yaakaar laa itam waaye bokk nga ci ñi tax ma yokk sama ngëm ci moom ndax dafa bari lu mu wax ci yow te ba mu koy wax kenn nettaliwu ma ko yow mii nettaliwoo ma ko dama ko fekke te amaana am na ci jotaay yoo xam ne yow mii sa jëmmi bopp sax fàtte nga ne fekke na bokk na ci ñaari ràkk yi ñu tuddee woon sëñ Cheikh Awa Balla bu ma juumul mooy jiitu jiitu sax woote bi yokkub jumaay daarul moxti gi bàyyi Cheikh Khady woote woon ba mu lay wax ne la ñaari ràkk yi di ci cérémonie bi bëggoon naa nga jël fa kàddu waaye fi mu ne bu ma ko waxee ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi buñ ko nangooy dañ ma ko ruuse waaye du leen gënal ndax nit ñi xamagul la waaye nan xaaru diir boo xamante ne buñ ci àggee ñoom suñ jëm bi bopp danañ daw si ginnaaw beneen bi ci topp itam keroog bi mu lay jox soxna jaara nii nu bokk ak moom bàyyi man mii la yebaloo lu ci bari man la ko def la woon ba suñ boroom dogal kon amel na ak cant ndax ki tax nga xam loo xam ne xëy na umpoon na la ndax njureel dafa jege te doomu aadama lu miin yàpp lu ko jege du ko gis ndax yàllaa ko bindee doomu aadama li ko gën a jege sax mënu koo gis mooy xef jur képp koo xamante ni sa jur dafa laal ci Serigne tubaa ak lu mu ca laale moo xam muy pas-pas moo xam muy mbokk moo xam muy deret mbaa lu mu mën a doon boo jaayee sa njuréel ci moom jëndee ko taalibe te muy dëgg ndimbal nga ndax doomu aadama doomu aadama rek te li ñu yombalal loolu loolu ca ca nga bokk man samay kàddu duma koy yamale rek ci cant ak ngërëm gi nga xam ne bàyyeekoo ne ci sëriñ bi jëm si ci sa jëmm ji ak mboolem say mbokk mbooleen ko leen jàppale mm-hmm. sëriñ Basiiru ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñi nga taxawoo Serigne Gana ñëpp la war waaye ñun njabootu Cheikh Mouhamadul Mokhtar ñoo ci raw kon nag ñu ngi lay sant te cant googu moo jàll ba ci képp koo xamante ni nii am nga cër ci sëriñ bi taxawu Serigne Gana jàpp ko jàppale ko ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba Serigne Touba nag dafa mat a lebal te guddi yi ñu toll ci ay nitam lees ko mën a lebal. ndax jamono yi dafa soppiku tey jii bis bu set nga gis ci wàlla wala ci wet gi jege lool di wax di jéem ak di def loo xamante ne sabab ba ci njëlbeen ga ba ci mujj ga du lenn lu may mel na kuy jéem a tàggale Sëriñ Tuubaa ak li mu yokk waaye li ci dalal sunu xel mooy loolu lépp ay pexe la te yàlla sunu boroom dogal na ne li mu bind ci ay doomu aadama ci biir mbindéef yi ñu weex ñi ñoo ci ëppi pexe ndax lu jag ci àddina ñoo ko jagal ginnaaw kàttanu suñu borom te ñooñu jël nañ seen pexe yépp jéem ko ci sëriñ tubaab ba jeexal te mënuñu ci moom dara li ko sabab nag mooy sëriñ Touba li mu yor ay pexe joxu ko fépp foo gis foo xamante ne la fa nekk ay pexe moo ko fa jële dafa fekk na ay pexe ko fa te Serigne Touba li yor ay pexe joxu ko ngërëmul yàlla suñu borom looloo ci dalal suñu xel waaye nag. baatin fépp fu koy tudd zaahir a ko jiitu dafa am loo xamante ne mooy saayir si mooy bu tontul sëriñ bi jotee ñu tontul ko bu jëfal sëriñ bi jotee ñu jëfal ko bu jox sëriñ bi jotee ñu jox ko bu dox ngir jëmmi sëriñ bi jotee ñu dox ngir jëmmam te loolu sëriñ gàndam yi da cee nekk bu wér ku ne xam na ni fépp foo xamante ne warees na faa waxal sëriñ bi ak ci lum mën a doon dana ko def sëñ Tuubaa nag ku yomb waxal la ni ko sous-préfet waxee léegi Sëñ tubaa production locale la jamonoy tey jii dañuy fekk li dul dara nu wodd ko ba mu nuru dara buñ ca jógee nag duñ ca yem dañ koy jël bëgg koo teg ci kaw ci ci kaw li nga xamante ne mooy dara muur liy dara li dul dara di fay waaye ba àddina baaxoo ba léegi ci logique dégg gëm moom mënta gën a yenu maanaa gis gëm sëriñ Touba déggunu lennam ndax koo xam ne dañ la naan photo ma ngi nii nii la meloon ay doomam ñi moo juróon ñii kër yi moo ko dëkke woon xaside yi moo ko bindoon fii lan ko denc daram gënu koo leer ngi leen di nuyu ci tudd suñu kilifa sëriñ Cheikh moom sëñ Bara Khourédia ñu jiital ci nuyoo bi nag sëñ Abdou Mbacké ñu fi nekkal sëñ Mor Diall yi bàyyi ko kër sëñ Abdou Karim ñu ngi leen di nuyu ci lii nga xam ne moo na fa bokk tasal moom moom yow sunu kàddu ak sa kàddu genn kàddu rekk la ndax genn kër la daanaka fi ma toog yaa fi waroon a toog ndax sëñ Mbàkke sunu kilifa la sëñ Baara bu ñu koy tudd ci mbir kon mel na ne benn kàddu rek la loolu xër la xër ci lu jëm ci wàllu sëriñ bi nag loolu sant yàlla ndax ku nekk ci la nga war a nekk war ngaa santaat suñu borom ndax boo ci nekkul mën ngaa nekk ci leneen kon nag ñi ngi rafetlu jotaay bi bu baax di ci sant yàlla bu baax sëñ Gana nag ñu ngi sant suñu boroom cant goo xam ne moom yàlla na ko xamal te jàppal na ko bokk yi fi tas yëpp cant googu ñu ngi leen koy biral nu bokk di sant suñu borom ndax fi mu toog suñu fi toogutoon toog ci leneen. kon nag moom wéttalam mu ngi ci waxataane sëriñ bi yëngu googu mu yëngu ci sëriñ bi nag wax dëgg lu rafet la màndarga mi mu ci amit yàlla na ko ko suñ borom nangul ci baatin saa yu si day rafet na kon nag yàlla na baatin bi rafet soo woote woon leneen ñu dégg la fa ngay dëkkandoo ngay dugg du nu xam ngay génn du nu xam nun duñu fi dikk njaboot gi fi ñu dañu koy nëb nëbb kon nag ni ko oustaz waxee léegi fenn fu ne nit bàyyi ko na fa ku ñu gis ak ku ñu gisul te benn bëgg-bëgg rek la kon nag li ngay woote te jëme ko ci sëriñ bi te kenn ku ne war a jëm ci sëriñ bi yàlla na ko son borom nangu te bokk ko noonu de dina amul lu sunu kilifa amul lu may jataay bi jataay bi soon borom santaan na ci borom ndax fii ba fi sëñ Baara yi sanc jëlee fële dëkk ba fi sëñ Abdou Latif ne sëñ Mbàkke Ramata yàllaa def fa la nekk doon jëwriñ sëñ Mor Jaara wax nañ ne sëñ Tuubaa fekk na ko booba am na nangami fan yoo xam ne gisuñu ko mu yëngul waxtu tisbaar ñu dikkee fekk ñu nodd bi ñu noddee sëñ Mor ne ko doxal nu julli ñu julli buñ noppee ba noppi ñu àgg ci kër gi mu ne ko dëkk bii de xam naa ne lépp loo taxawal sunu boroom du ko gental dama bëgg nga defal ma fi ay néeg kon nag saam su doxee mu jóge fi vingt trent sëñ baara sëñ fii mu dox ba fu ne ñu ne saam te saam gàddaay yi ko tuddoo mu yóbbu ko di fenn fu ne ñu di fa tudd sunu borom di fa jàng xasaayid sëñ Tuubaa kon war na naa santaat suñu borom ndax ku ci ne am nga cosaan ku ne am nga tegtal tegtal lu jëm ci sëñ Tuubaa nag te rafet te kenn ku ne di ko buukariwu ku ko suñu borom séddee war ngaa santaat suñu borom kon nag bi nga dikkee suñu borom boole nu ak yow it nga dalaat ci toolu sëriñ bi turandoo yi li muy bari bari nag bi nga tuddee sëñ Mbàkke boo ci yemoon doy na bi nga tuddee sëñ Baara itam genn njaboot la kon loolu yëpp la loolu jàpp la yal na jataay bi gën a yaatu ñu ngi koy rafetlu bu baax te ñaan sunu borom nangul na ko ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaar te jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu sàmm ko te ko. ba liggéey yi nga xam ne sumb na ko di ko liggéey mu àggale ko ci jàmm ba defaat yeneen ak yeneen tànn ko taalibe yëpp di leen indil nuyoo sëriñ Abou Bakrin mi nga xam ne moo toog tey ci buntu kër sëriñ Abdou Karim Touré toogee xilaafa gi ci ni ñu ko mën a waxee nee na mi ngi nuyu bu baax sëriñ Gànna Mesre Maxtaar di ko xamal ne liggéey bi de rëy na lool te rafet na lool ba tax na dafa wax ne moom ci boppam su mënoon ñëw dana ñëw waaye nag sàkk na ay ndaw yabal leen ngir ñu dikkal ko délégation bi ñu àndal du mat ñu koy lim ndax lim nañu ko ba nopp suñ maxtaar lim na ko waaye sëñ boo ak rakkam di xaritam di soppeem di taalibeem di sëriñ tey Touré tey jëwriñam tànn nañu délégation bu bawoo ko sëñ yabal leen ñu ñëw fii sëriñ Cheikh moom sëriñ Basiiru jiite ko yóbbaale ñëpp góor jigéen ba ci soppe yi sax am na ci ñoo xam ne ñëw nañu lépp nag ci diggalal sëriñ Abu su ko defee liggéey la nekkoon moom sëriñ Abu boo xam ne addiyee joo xam ne sëriñ Abdou Karim Touré daf ko daan jox sëriñ Touba Xaadimu Mustafaa bu waxtu jotee mu dugg réew mi moom sëriñ Abdou Karim su dajalee addiyee ba noppi dem yit ko sëriñ Touba bi nga xamante ku baax ki ñibbi na àjjana sëriñ Abdou Karim ñibbi àjjana njabootug sëriñ Touba nekk fi njabootug sëriñ Abdou Karim nekk fi ñu woyee liggéey boobu ba jamono yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci liggéey bu rëy bii di xew-xew bii lu ci bari fekkuñu fi daal fekkoon ñu ànd ak sëñ boo nekk ci waaru li nga xam ne ci la sëñ kër yi nekkaloon sëriñ Touba mu am ñu mu tànnoon ci njaboot gi ñu doon ànd ak ñi nga xam ne ñoom la leen seen gànn booleeloon rawatina presse bi ñuy def ay ndaje ak waxtaan ci plateau yi loolee moo tax bi mu ko defee nag bi ñu demee ba nga xam ne ñoom i toll wàllu njàmbur ba àgg ndar seen yu lañ waññi koo gi démb te booba sëñu boo dafa wax ne ginnaaw ci toolu sëriñ Tuubaa la ñu nekk te gànn tamit ci toolu sëriñ Tuubaa la ñu nekk te bis bii tudd nag sëñ Abdou Karim tudd gu wér ba tudde ko ko te lépp liggéeyal sëriñ Touba la kon nañu dellu Touba benn bis yomb naa muñ ba événement bii jàll ñu delluwaat ci waar wi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi ñu ngi nuyu yi yëpp di tàmbalee nuyoo bi ci alxalifatul aam li taifatul muridiya Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan ci barkeb sëriñ Touba naan yi mën naa la sëriñ bi. wér lool yàgg fi lool te ñu ànd ko ak moom ba ñëpp a àgg barke Sëriñ Tuubaa di ci teg Sëriñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay buur xalifa Cheikh Mouhamad Diarra di ñaan ci barke Sëriñ mu naanal Cheikh Mouhamad Diarra maa àggale moom di nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi di waa kër Sëriñ baada xureja sëriñ Cheikh Tade Mbacke yabal leen sëriñ Fallou jiite ko ak sëriñ Mame Balla ak seen njaboot di nuyu itam bokk xam ne ñoo ànd jóge ci njabootu sëriñ Mbacke Fadima ak kër Cheikh Asta Walo gi yëpp ak mbokk yi ak waa kër sëriñ ab Abdou Karim Touré mi ngi doon xam naa baax moom danga ko def ba am ñu yëpp yow sax loo xam ne xëy na foog nga ne ko dégg naa ci moom benn xista boo xam ne ci moom laa ko mos a déggee ñaareelu ci ak maanu nett nañ ma ne dem na fi barab ci jamono yàgg di jënd ceeb am fepp mu dugg ci aw yaram moom dem ba këram nemm ko wéy gis ci fepp wi da koo def ci aw këyit jox ko taalib ma ne ko delloo ci biti ba ma nekkoon falaw fepp yu toppee loolu Sëñ Tuubaa rek moo ko mën kon ku xam nañ ne ci mag ñi jax Sëñ Tuubaa la ko ñu ngi leen di wàcc di wàcc seen wàccuwaay di leen nuyu baax di jot nag kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyi ko ci njabootu Serigne Mbacke Fatima Serigne Cheikh Mbacke jiite leen ak njabootu Cheikh Kër Cheikh Sawalu yëpp mu mel na kàddu gi Serigne Fallou di suñu waajur dafa njëkk ñëw wax ci waaye kër Serigne Baara Khourédia ak kër Serigne Mbacke Fadiama du ñaari kër genn la Serigne Bara Khourédia mooy kilifa ak Serigne Mbacke Fadiama di waajuram suñu war jaara jur ko Cheikh Sawa la jur suñu Mbacke Fadiama muy ñetteelu ci benn ci génn cër mu mel ni suñu fan li waaye dañoo ñëw ngir yàkkale ko bi ndax ñun ñoo doomam moo ñu war a wax loolu sëriñ Mbacke Fadiama mi ngi fi ñëwit ginnaaw bu ñu sante suñu boroom subhanahu wa julli si sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi euh, sant suñu ñaari waajur di ñaanal xalif général des mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg di jël sunuy ziar cant di ko teg ci loxo sëriñ Fallou mu Serigne Baara mu xëy jo mu tegal ñu ko ci loxo mbokkam yi fi teew yépp Mbacke Mbacke yi fi teew yépp fàttewuma ci Serigne Guédé fàttewu ma tamit sëriñ galas mu teew fii ak sëriñ jiig Mbacke sëñ abib samay xarit dëggan dëgg lañu dëgg yàlla sëñ abib maa ngi leen di ziar leen dox seen wàccuwaay euh, di jox tamit wàccuwaay sëriñ euh, njabootu sëriñ abdourahman abdou karim ñi nga xamante ni bii ñoom mbokk nañu si parrain yi ak njabootu Serigne Cheikh Moufredia Mbacké ñu fi teew yépp maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di sant di gërëm tamit ki nga xamante ni bi tey moomoo waral jotaay bi fii tey muy Serigne Gana Messere maxtaa di wax ni am nañu mbégte lool teew fii si cant bi nga xamee ne bi mu ngi koy cant sang ju tedd boobu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul euh, cant bu am solo la ndax mu gis ci seizième édition nu ma déggee wax bi am na fu mu doon tàmbali cant bi ñu toog wàccee kaamil Euh, jàng xasaay après daal di ñaanalante dem cant bi nag di màgg boobu ba léegi mi ngi gën di màgg di dem ba léegi sax ren dañ ko organiser CLD moo tax ngeen gis fi sapor yi fi teew yëpp ak euh, gendarme yi yaakaar naa ne seen taxawaay rafet na parce que euh, nee nañu li ñu tënkoon si CLD bi yëpp mi ngi mel ni matale nañ ko presque à quatre-vingt-dix-neuf pour cent kon alhamdulilah parce que 100 pour cent moom dafa xaw a jafe jot waaye 99 pour cent bu ko sëñ bu waxee kon gëm naa ne donc ñun tamit ah bay nañ suñu waar. sëñ Gana Messere man xam naa ko boobu ñëwaguma sax mais si Facebook laa ko doon gis ak yeneen télé muy def ay conférence muy un conférencier national et international mu dox yoon bu muy dox lu mu dox si yoonu murit ba tax tey jii muy cant ba cant bi di màggee nii di demee nii daf si am tout simplement ngërëmal sunu boroom ngërëmal yonent bi ak ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul loolu donga cant bi nag du mës a am tànku ginnaaw tànku kanam rek lay am. waaw ah, sëñ Gana bisimilah dama la soxla de sëñ Gana Mesere na ñëw ma wax ko boppam ndax benn waaye daf joo xam ne ko mën nga alxuraan mu ne mënuma alxuraan de waaye suma jàkkaarloo moom danaa ko wax boppam. waaw ah, dama ko bëgg wax boppam ci kàddu suñ bii fi suñ mbàkke bi fi jóge di xalifa bi sañ gede ci lañ fas yéene waxtaan li wax ndax ci délégation ba lañ bokk ndax dana bokk ci kër sëñ Abdou suñ mbàkke faa jama di teel bi nga xamante ni moo njëkk jébbalu ci sëñ Abdou Khadir njëkk koo mu néeg ngir fi mu fare fi laa fare muy bëgg sëñ bi wóolu ko bëgg na sëñ bi waaye dañu ko wóoluwul leneen la ñuy boolee sëñ bi moom ne daa boolu sëñ bi ak dara gànna sëriñ Tuubaa ko ñar moo tax ba sëñ bi jox ko cër ngir Bàmba nag nit ku ko ñor ci moom lu nekk xam na ko gànna sëriñ bee ko gënal boppam tayit moo ko gënal bokk ak xarit moo ko gënal lépp lu buur sàkk na ko yenn bi daa xam ne almaru mahaman ahab xat xaala sayidul arab te gànna Bàmba rek la fab moo fees xolam kenn sikku ko lee tax bisub jongante ba gànnaay ko yóbbu oto ba rafetlu naa lool atte ba bambaa ko ma jox la ko kere ba ñu woote ne dañuy woote gi gën a waxtaan sëñ Tuubaa jox ko oto bi dem daan leen gànnaa koy jël ndax gars yi bari dañuy waxtaan sëñ bi ngir lañ waaye jox ko sa xol sëñ bi gën a lépp lim ci def gisuma kenn ku ci mel noonu boobee ba tey yaa ngi ci kanam sëriñ bi gànna liñ ci xam boo ko waxee mu jox la xam xam buñ xamul nga génne ko yow yaay awakaab sëñ bi tey yow foor la yoo kenn du la yey yow ku la kontar nag du lay ba yey nde li wax gëmu ko gis naa ku doon kontar di wax naa gànn mii lu rëy la wax moom lii mu wax kenn du ko wax ma laaj ko lu mu doon wax wax ma ko mu ne gànna daa wax ni sëñ bi kenn du moom ngir loo fi gis bàmbaa ko moom ma wax ko wax na dëgg moom la bàmba wax daal wax na ko nee na gànn bi sax dañ sëñ Tuubaa loo fi gis moo ko moom daa pëlkat ki daa war a di wax sëñ Tuubaa ni malaka ni dunya wax raa samadu yow nga naan oto bi bokku ci yi sëñ bi te dem nekk ci àddina ak àllaaxira ah malaka ni dunya wa wax raa rabb naa la Bamba wax ku weddi gànna weddi wax ji sëñ bi wax lii lii lii ko saxal ci sëñ bi fii nga ne loo wax lu rëy rëy rëy lu ne sëriñ bi wax na lu ñu ne moo gën a rëy ma wax la ko xasida yi nit ku ko gëm yow gànna kon dana la gëm gëm yàlla gëm yeneen ba gëm sëñ Bàmba lool te sopp ko yow tàmbalee ci suñ bi nag te yem ci suñ bi rekk nag fii dong dong fi ko teg riig ko fi rek rek riig ko fi rek bu mu teggi ko yàlla na yàlla sàmm la yàlla na Bàmba dolli la yow fii nga aw nag yoon wala yow gànna bur nag wàcc ko yàlla na nga wér di gudd fan ci barke yoneen bii gën ak barke mbër mii fi man loo yuutu yàlla jox la ko mënoon na maa gën sori ci jëfi Gana Messere ngir fii mu far fi laa fare muy bëgg sëñ bi wóolu ko waaye ma yem fii tënk ko danaa ñëwaat bis tagg ko bañ xam ni yàlla may na ko lu réy ci sëñ bi cër na ko ñetti béy ngeen may ma ko ci mag ñi nag ñetti béy gépp ma ne mag ñii sëriñ Bamba yaroon ak soxna yi Bamba yoroon ak téere yi mag ñi yëroon ku leen sikkal ma saaga ko li ëpp nag ña jàngi woon ñoo dikki xeer ña woon dem weddi mag ña jege woon sëñ Bamba gëm ko topp ko te Bamba nag lam andi woon sunna su leer la ànde woon ak ñin yaroon daa ànd woon la wóor ya bëgg sori ko ba tax mu dem sañjub dëkkam wut teelu beem buur wut dagam ku ne dëkkam te ne du gëm Bàmba ak ñooñam génn ko ndab li fi suñ mag bi teg daay tibb seex te duma teg ku ndab li neexul te mu teg njëxam de bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki julli di bokki taalibe yi assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo di nuyu di leen siyaara bu baax di ñaanal sëriñ Serigne Mountakha suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yépp di nuyu <clears throat> kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di ko tàmbalee ci njabootu maam borom saam gi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi njabootu sëñ baara bi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Fallu moom sëriñ baara mu jàllaleen na ko sëriñ Cheikh Tedd di ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér ak mbooleem ñi nu àndal ñëpp di nuyu it ñi bàyyi ko ci sëriñ Abdul euh, kër sëriñ Abdul Karim sëriñ Abo nekk ca bopp ba di jaarale nuyoo bi sëriñ Cheikh sëriñ bi ñoo ngi lay jottali ay nuyoo ak ziyaara yu jëm ci kilifa bu tedd bu mag googu di sëriñ Abou Bakrin Touré ñaan yàlla suñu borom yàggal ko yàggal njaboot di nuyu it njabootu Serigne Mbacke fa jama waaye maa ngi wax jabootu Serigne Cheikh Assa Waalo di jël nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Guédé Serigne Mbacke moom Serigne Guédé waaye di nuyu Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne it moo fi teewal Serigne Cheikh di nuyu sous man Mansour Diallo noo ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax muy nit ku baax. koo xam ne bu ñu ñëwee biroom dafa ñu recevoir waxtaan ñun ci sëriñ bi waxtaan ak ñun ci réew mi nekk suñu xarit ñoo koy jaajëfal bu baax waaye nag di sant bu baax sëriñ Ibrahima Sall bi ngi xam ne adjoint la te kóllëre gi yàlla dogal mu tàmbalee ci moom waaye lépp rafet kon noo koy sant bu baax di ko gërëm ci seen taxawaay di leen xamal ne it lépp lu ñu ñëwoon sàkku ko ca béréb ba yàlla dogal na ne lépp mat na ndax ñi ñi joxoon convocation yépp ci ñu war a ànd ak ñoom matal nañ ko mairie yónnee na fi ci lu jiitu ay oto vidange yónnee fi camion yoo xam ne tonn nañu mbalit yi ñoo ngi leen ci sant bu baax gendarmerie commandant bi ne ginnaaw suba la ñëw na fi xool mbir yi delluwaat te jii ci suba yi ñëwal na fi boppam ba coordonné lépp ñoo ngi ñi taxaw ànd ak liggéey bi ñoo ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne ne na ci loxo mu mu mu mu eggale ko di gërëm waa santé ñoom it ñëw nañ fi def consultation gratuite ñoo ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi di leen ci gërëm di sant waa sapeur pompier ñoom it ci taxawaay bi ba ñu xëyee ba léegi te suba la fi yabal mbooloo moo xam ne ñoo ñëw ànd ak ñun jotaay bi sant nañ leen gërëm nañ leen. boo gisee it ma di ko waxal sama bopp mooy teraanga ju tol noonu ku la ko defal jaadu na nga yëkkati ay kaddu delloo ko ci ñoom waaye baaxoo wu ñoo wax sax ci ab cérémonie nuyoo kilifa yow yëpp it boo gisee ma am ku ma mujjee muy Cheikh Abdoul Bachir moom Serigne Cheikh Thioro dafa am lu tax di nuyu Serigne falu Galas Kaltoom moom Cheikh Mamadou Lamine Bara muy sunu xarit di sunu wëlëre di koo xam ne waxtu wu nekk dafa nuy woo di jël ay teraanga di ko jëme ci noonu loolu it noo ko ci sant bu baax waxtu ki dem bu woo na ma téléphone boo xam ne man moom mi mu woo ak man ak ñi ma bokkal oto bi ñëpp mujj di jooy ndax dafa wax ba daanu yóbbaale ma ku jël téléphone bi mu wax la lu ëpp sa bopp te loolu lépp ñaanal lu rek ko waral Mbacke noo ngi lay sant noonu la ñuy sant si maam Baara Mbacke mii nga xam ne fu mu teew day soxla ñu ñëw teew ci wetam te dara waralu ko lu mooy rek wétali ko sëñ Tuubaa ak bëgg sëñ Tuubaa ak ber sëñ Tuubaa ñu di sant yàlla bu baax di ko ci gërëm kilifa yooyu fi teew yépp sëñ Mahamadul Mahfouz moom laay jël nuyoo kër Cheikh Mahamadul Maxtaar moom it danaa ci ñëw euh, wax ci ak sëñ Jili mi nga xam ni moom la sëriñ bi teg fii ci dëkk bi yàlla dogal njaboot yi mayam ku ma am sëñ Jili mi moo ñëw tudd ko ndax loolu bàyyam féete la ko kon nag muy sama xarit nag bu yàgg boo xam ne du léegi sëñ Abdoulaye Ndiaye mii sama ginnaaw di sama xarit di sama lépp mën naa seere loolu ba ñu àndee nekk ndaw muy sama xarit mu boole ñu ba tey bii ku ma am moo moo ñu koy taxawul di di ko sant bu baax di gërëm it wëllëre yi nga xam ne bàyyikoo nañ ci ay béréb mënuñoo tudd ñëpp waaye mën na maa wax si ab Cheikh Abdou Sylla mii ak suñu raat ñu bàyyikoo Louga di ay wëllëre soppe yi ma di leen sant sëñ Mbacke Diop mii moo ko jiite takk laxasaayam gii dama nga jógee Espagne ànd ci taxawaay bi ñu jóge jógee Gambie Ablaye Tall semaine bii yëpp rajo boo jàpp bis bi rek la ñuy waxtaanee ca Gambie ñëw nañ fi ab délégation boo xam ne talaanga ju nekk def nañ ko ñu bàyyi ko Mauritanie yi kasaalika ñoom it ànd ak sëñ Assane ak soxna Ndey Fall ñoom ñëpp bàyyi ko Mauritanie yi ñëw ànd ak ñun te jëmmi sëriñ bi rek ak bis bi tax xaj na li ma ko kërmatul tax na lu ci bari dana am lu ca des waaye loolu it ñu sant sëñ Isma Kebe daaw moom la ñu dara jaale nañ ko fi bis bi di ko gërëm bu baax ak sëñ Moussa Diop almashal di sant sama bopp nag maa ngi sant sama bopp sama bopp mi may sant mooy sëñ Moustapha Guèye kon man maa ngi gërëm saa bopp di sant saa bopp ndax bés bi bi mu jubsee sëñ Moustapha Guèye dafa ñëw def palaato li gën a yéeme bi ma ñëwee dugg ci néegam dafa yëkkati enveloppe jox ma na ma yow lii laa la yeewee yow mi def waxtaan wi joxaat ma amulom na ma bii joxal ma ko waa rajo yeeg yi ñëw léegi ñu door a génn waxtaan togg ay reer kon te moom mooy man maay moom moom Serigne Moustapha Guèye kon maa ngi ko ci sant bu baax ak mbooleem njabootu suñu am yépp ndax moom sama xarit la moo tax bi ma waxee ma ne maa ngi sant sama bopp maa ngi gërëm sama bopp loolu yit aw melo la woo xam ne doxin woowu la di ko gërëm bu baax sëñ Baara ci délégation bi la bokk waaye palaato bi mu def këram def na ci lu mat juróom benn fukki junni moom sëñ Cheikh mii daal na sama nit jaral na ma loolu it maa ko ciy gërëm bu baax di sant ñi ma yàlla booleel te ñu bokk nekk ci kër gi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal man na maa jël nuyoo yépp teg ko soxna maam jaara ginnaaw bi ma jiitalee soxna Ndeye mi nga xam ne moo moo jiitu ci kër gi maa ngi koy jaarale ci moom ndax moo war ndax moo fi jiitu soxna maam jaaral ab sëriñ la fi soxna la waaye ab sëriñ la fi maa koy sant ndax moom it ñoom ñii kenn ku ci nekk say bokk ñëw nañu ànd ak man bés bi ñëw indi sa teraanga jox ma ko ànd ak man bés ñoom ñii lañuy sant sant Mbakke dañoo futtee ku nekk ca waañ wa ànd ak man liggéey bi loola it loola it bu leen neexoon duñ ko def waroon nañoo bu leen neexoon toog ma jël addiye di leen jox soxna as su may ne ca waañ wa jiite ko mel ni ku santul mbàkke biig ba léegi dellu wut sa nguur te bu leen neexoon na gànna suñ taalibeeb bàyyee waaye defuñu loolu kon maa ngi leen di sant ci loolu ñu def ak soxna maam isa ahlu kafe moom it caawaay bi mat na te lépp rafet di sant sama bokk yi ñi ma bokkal kër ndey ak ñi ma bokkal kër baay yi ndax samay bokk yàlla dafa dogal ñoom ñu bëggal ma seen bopp am na ci ñoo xam ne mënuñoo jàkkaarloo man wax ndax bëgg nu di jël seen alal di nu jox ku nu ci yónni nga fëx kon noo noo ngi leen di gërëm lii lii nga xam ne nii jàpp nañ ne lu sëñ Tuubaa def la ci noonu loo xam ne sëñ Tuubaa ngeen ko ciy faye yàlla nañ ko bokk ëllëg ca kanam sëñ Tuubaa ñu mën a ànd ah, ñun ñëpp too toog ca kanam sëñ bi ma ne ko samay bokk ngi nii loolu sëñ bi sedd rek bu ñu ko lërta bokkook ñoom yàlla bu ñu ko am ndax mbokk yu gore laam yu baax kenn xàmmewu leen ci xëccoowu ni ay bank xëccoowu ni place ay bàyyi fayal lañu ci noonu bu ñu ñuy nuyu dañuy tuur seeni rongoñ di wax ne yow mii lañu sëñ Tuubaa féete del kon sant naa leen ci bu baax gërëm naa leen ñoom ñëpp sama wóllëer yi bàyyi ko fu nekk ñëw teew sëñ Waly gërëm nañu leen ñi may mujje nag moom sëriñ Cheikh Thioro sëriñ day sama sëriñ di sama xarit muy nit ku baax koo xam ne sëñ Tuubaa rek la ñu moom lañ àndee it mu tane ñu ci xam-xamam tane ñu ci alalam tane ñu ci darajaam dina ci gunge waxtu wu nekk noo ngi koy sant noo ngi koy gërëm bu baax liñ àndee moom it loolu rekk ko waral da dana dana faral di wax ne gàtt na sequ ñu dara du sama xarit du sama nangam du sama nàngam man mii jëppee wu ma ko ab xarit jëppee ko alal ndax xam naa ñu ko pëne fop bis bii am na ñu fi indi loolu mënuñu maa gis liñ ma jox man naam kenn joxuma ñu toll te ñoom mënuñoo agsi ci man teg ci kon ñooñe bu doon daraja man naam ma leen ko koppale kon indiwul ab am am dafa maa woon sëñ Tuubaa ju leer rek ñaan am na ab sëriñ it xam na ma ndax gànna maxtaar lañ may wax jébbuluwuma kon waaye as gor la ko tanee boo ko ca dimbalee mu jàpp la looloo nu boole ko am fulla la ci loolu dégg naa mu a gànna du sama xarit sequlu tus du sama xarit waaye sëñ Tuubaa laa gis ci moom may waaye bu bu doon alal laay wut danaa ko teg ndax xam naa ñu koppali te nag bu ma nekkee ci biir bàmmeel yaakaar naa fa maxtaar de kon nag li ma àndeek moom xam naa lu mu lu mu doon daf maa yëg rek nag jàpp ma xam ne nit laa ndax man ab ceddo laa maa nga dëkk mbaakool maam ju ma jun ma sa moom aw ma ñi daan yenoo suuf di kajoor di ko yóbbu bawal sama maama ko dakkal ba mu ñëwee fekk ci piiñ ci mu tëdd mu ne ko loo fiy def mu ne ko buur ba jolof ma yabal ngir ñu fay lempo yi daa wàcc ak fetalam dóor ko mu daan kon man bañ ak loolu mooy sama mbir ab caddo la kenn du ma cof kenn du ma napp kenn du ma xiixaan andi wu ma kenn ne la wutal ma passeport diplomate musuma ko wax benn sëriñ may ma ma tabax kër musuma ko wax kenn kon ku ma topp sa ginnaaw di la simmili daal di la daw di koy sëñ Tuubaa nekk ci yow looloo ma booleeg sëñ Bas tey moo jot ma war ko wax rek pour la jum am ba jàpp ne du ma taalibe du ma du ma xaritam du ma dara looloo ne waaye lii moo nu boole mosuma ko wax bindal ma benn recommandation mosuma ko wax benn arrangement mosuma ko wax dimbali ma ci dara ngir damaa jaaxle ca loola waaye sëñ Bas mii damaa ëpp damaa ëpp ci yëpp dama ëpp moom Serigne Bachir damaa ëpp wàcce ganaar sax bu dee sama kër sëñ bas ñëw na ma nu ñuy def kon bu ma goree xanaa bu bu waaye waaye waaye néew doole néew doole du tee xeex tollowu tollowu ma ak moom mais li ma man danaa ko def sama bopp laa am loolu rek ma booleeg moom ku baax la ku ma gunge ku ma wéttali koo xam ne lu doon laaj bakkan moo cay jiitu te sama moroom daal moo tax maa ngi seere adduna lii la ànd ak Serigne Bachir moo tax ma jëlal sama bopp kàddu yi ngir wax ku baax ku gore ku bëgg Serigne tubaa daf may wax ne ma gànn lu ma am ci Cheikh Mouhamadou la da nga ci am bis bii day ñëw na ma lu manqué loo bëgg lu mu doon waxal démb moo fi jiitu bërki démb waxtu wu nekk mi ngi teew sëñ Basiiru jërëjëf nii nga nu jàppe te sëñ Touba rek tax ndox nun bu dee taalibe bi am nga ñun ëpp bu dee bokk am nga ñun ëpp doonu yónni doonu liggéeyloo bëgg noo dimbale rek a tax nga jàpp nu jërëjëf yàlla na la yàlla fay di sant si Abdou Samad moom Serigne Chouaïbou kooku dafa maa jam ci pardu ndax moo ma yóbbu ca Rasulullah si Abdou yàgg ma bëgg yàgg ma jàpp yàgg ma bàyyi xel daana yónnee oto mu jël si ma fii yóbbu ma ngir ma toog këram di waxtaan sama gaal gii bu ma ko ubbee xaw ma ñaata mbubbi sëñ Abdou Samata ci nekk mu yóbbu ma makk taraa nga jule mu di ma ko defal kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm démb nag yi yeew fii fii la ko tàmbalee ba fekk yëmu ci boole ko taal oto mu ñëwaat fi la jullee timis ba gee fekk ko fi mu door a dem man nag du ma ne ci liggéey sëñ Tuubaa bii moo xam ku la mën a jur ak foo mbakkee foo buusoo foo faale boo yëgut ne liggéey bi maa ngi ci du la yëg ndax man liggéey bi ma ci boole man sëñ Tuubaa du sa maam seexulut sa maam sëñ nee moo ma may lii ku ma ko bëgg a xeexe ba génn ci yow ndax un ratio lii ma ci boole koo man a doon nag ndax boo dee boddikoo ko génnee ko xuppe damay xam ne doo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa bu doon def noonu kenn du jot ci moom te kenn du sëñ Tuubaa gis nga fi ne sëñ Fallu sëñ Modou lu mu jëf sëñ Fallu sëñ lu mu jëf sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye ëppul lu mu jëf sëñ Saliou ëppale wuñ si loolu la ko waral bismil ilahi yan muuluhaa yi bila manaahi wala tee gis nga sëñ Muntaxa daa dajee ki milliard sëñ Modou Moustapha dajee koon carrière ku mujj ñëw yaa ëppale du kenn sëñ bee maanaam du wërsëg wu rëy du daraja maqaamam sëñ bi egg foofu daraja sëñ bi egg foofu du njàmbaaru kenn ndax koo ne la lu mu def bu dee gasub raay nu na ñoo koy gas ji bu dee addi yi taalibe yi da ngeen naan joxe leen di ko laaj kon lu fi waay am taalibe Sëñ Tuubaa yi kenn deful Sëñ Tuubaa dara Sëñ Tuubaa defal ñëpp kon nag ku ca boole yor loola di lu seexloo di lu bondikoo ñu génn ci yow xam ne enlacé wun jàpp ñi wàcc seen i daraja dimbale nu ndax ñoonu arrange ndax yow ni nga def bu nu Sëñ Tuubaa defoon doo doo mel ni nga mel wala doo ko doon moo tax ku nu jàpp ñu jàppal moo tax Cheikh Abdou Samad nee ko yow Cheikh lu wóonu ñu bari ay dëmm lañ jàppi taalibe duñ bokk ñoom lekk buñ leen seen nëbbutu bu ñuy naan làq ko te mu la joxee addiya moo tax noo ngi sant Cheikh Abdou Samad ci nii mu nu jàpp di sant Cheikh Mouhamadul Mamoun moom Cheikh Abdou Lahad moo tax boo ñëwee ci këram aw turam a nga fa Cheikh Abdou Samad sëñ Mouhamadul Mamoun maa ngi koy sant nag wi ma yónnee démb xaw ma nu mu toll xëyaat ñëw fi tey ci suba maa ngi koy gërëm turandoo wi ma ko tuddee ngi fii sama kër muy ku baax di ko woyef di ko bëgg sëriñ jo moom it nii la ñu jàpp mooy sëñ Touba rek la ñu jàpp ci lépp moom si Abdou Samad maa koy maa maa ngi koy gërëm bu baax ndax nit bu la defee loolu mënu sëñ euh, maamun da nga koy sant teraanga ju nekk andi nañ ko maa ngi leen di gërëm sañ jili ñang kennal Serigne Touba démb aw nag la fendi na ma joxuma la ko addiyee sëñ afiye joxuma la ko addiyee kenn addiyee sëñ Touba laa la nañ koy kennal maa ngi ko ciy gërëm maa ngi koy sant euh, Mouhamadou Gueye sant naa ko bu baax sëñ bi man sama xol sedd na Aliou Thioune gërëm naa ko li tax ma tudde ko doom bu doon deret du ma ko def ndax man géer laa kon duma ko ko tudde Aliou Cuun daa ubbi rajo daan na mën naa am lam xam sax bariwut mu jël ko ci rajoom te laaju ko diplôme na ko la neex defal rajo baa ngoog na sëñ Bàmbay riir rek ba tey nee naa nee naa ko léegi jigéen nag bu dee sëy bu njëlam doyee ku ne mën na laa yàkkal waaye jigéen lim mën lim moomut mooy tëdd ak geneen góor gu dul borom këram waaye ku sa njël doy nga sa nga yàkkale moo waral gànna ne fu ne ndax mën na maa yàkkale ndax sama njël doy na benn yoon lañ lañ may moom Aliou Thioune maa ngi koy sant si Ibrahima gërëm naa ko ku baax la sama xarit la ku gore la ku mën a nëbbutu la wane wut àdduna wane wut dara looloo nu boole waxtu wu ne lu ma yëngal lu mu néew néew mu bàyyi lu mu jàpp ñëw ñëw ñëw fekke si sëñ Ibrahima mii moom dafa amaat li ñuy wax relation personnelle dañ koo siqaat maa ngi koy gërëm ak sama nijaay sëñ Fallou Gala Sylla ku ñàkk ki ñaan ku baax koo xam ne defe nañ ne lu jóg war naa taxawu jàpp ma ca wala mu jàppale ma ca di ma gunge di ma wéttali bu ma naree jaar fu ma wërta jaar mu ne ma du noonu awal nii bu ma naree wax lu dul noonu mu ne ma bul wax loolu waxal lii te ma mësumaa xam moom yitte ju ma wax ngeen man ma defal ko man kon maa ngi koy gërëm bu baax sëñ Fallou gën a siiw Ibrahima Fall Lamp moo munoo bokkoon dem mag sama grand la dama ko wax sama grand nit ku baax la borom xol bu sell la may jeexale lépp nag mooy jataay bii li tax ma di ko tudde mag ñi mooy ñoom ñoo ne ci dëgg ndax sëñ Touba da leen a gërëm gis nga kuy dund du référence